wasalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. ああ。まあそうです。 non weer yi moom il faut ma yeneen weer sama weer yi mu ngi ci oto bi. waaw salaamaaleykum man sax xam naa ne baaxoo sax di wax mais xam naa daa am lu may leeral tuuti rek ci état de santé Serigne Bara. comme ni ko Adama Ndiaye waxee léegi rek depuis le 4 juin ci la nekkoon ci loxoy gars yi comme noonu biñ ko enquêté ba xam ne moom defu dara ba juge bi defal ko liberté provisoire ñu def appel depuis le 28 nag ci la jël engagement boppam xam ne moom kat defu dara. te nit ñi liñ ko doon toppee lépp lépp lépp lépp lépp lépp xool nañ ci téléphone am ndax boo xoolee bi nga ko fiy jël si dañoo waxoon ne dafa am ay transaction da koy def di transférer nit ñi xaalis ngir ñu taal ak di wax di woote biñ xoolee ay téléphone nag gisuñu dara dara dara ci lañ ko delloo moom nag depuis loolu moo ngi doon toog ànd ak ngorom ba niñ ko def ba mu jeex tàkk léegi depuis le 28 nag. moom moo jël engagement boppam ne injustice bi nga xam ne teg nañ ko ko moom dafa bëgg mu dakk moo tax mu entamé woon grève de la fin boobu bi mu ko demee nag bi mu ko commencé sëriñam sëriñ Moustapha moom sëñ Baara wool na ko pour mu bàyyi ci diggante bi bàyyi na fi ab diggante bi mu xoolee nag affaire bi nag jëmul kër ci la ko jëlaate bi ko jëlaatee ci lakkaat bii passé bi mu jullee tisbaar ba pare julli ajum bu fare ci foofu pavillon spécial foofu la daanee malaise ñu jël ko indi ko principal comme ni ko gars yi waxee biñ ko indee principal urgence lañ koy yóbbu biñ ko yóbbee urgence après lañ koy dogg yóbbu réanimation ndax xam naa ne état kaam euh, dafa xaw a critique trop depuis vendredi nag samedi dimanche ba lundi ci la famille bi doo xam ne sëñ baara moo ngi principal ci la ñuy doog woo xamal nañu moo ngi réanimation bi ñu ko xamale tamit dem nañ fa biñ fa demee tamit amuñu woon accès ci moom ndax ba tey comme ni ko gars yi di waxee ay fake news moo jog ñaan may nañ ko liberté provisoire bi ñu ko waxee Pape Alé euh, maa woo mi nga xam mooy avocat mu ne moom mayeeguñ ko Pape Alé ko may gis nañ biñ xëyee tamit nit ñi bind ne may nañ ko liberté provisoire ñu leen wax tamit ne leen Sëñ Bara depuis ñu jàpp ko ba léegi kenn mësu koo bàyyi kenn musu ko bàyyi ba léegi nii moo ngi ci loxol yoon loolu bëgg naa tamit mu leer bu baax a baax a baax a baax depuis ñu jàpp ko ba léegi kenn kenn musta bàyyi Sëñ baar ba fii ñuy wax yéen nii nii nii moo ngi ci loxol yoon loolu moom dama cee bëgg a ndax information yi tout le temps day ñëw ci man bàyyi nañ ko bàyyi nañ ko loolu moom bëgg naa waxaat ko tamit kenn kenn kenn musta bàyyi Sëñ Baara ba fi ne nii bu àggoon bu àggee fi ne nii garde pénitentiaire ngay fekk ci bunt ba ñoo taxaw ñoo koy garde foofu ci principal ci réanimation bi loolu amee jéem nañ koo gis mënuñ koo gis après bi euh, bis bi del siwaatee dem naa fa ñu may ma ma gis ko li tax ñu may ma gis ko nag état dafa xawoon a critique ba moom ci boppam mu waxal boppam ne faj biñ koy faj da bëgg dafa bëgg ñu arrêté ko bëggatul kenn ku ko laal bu fekkee day dee mu dee bu fekkee day dund mu dund loolu la utiliser mu teg ko ci lan xam ne nag injustice lañ ko teg ndax ginnaaw nit ki jàpp nañ ko ne ko da def ñu dem ñu xool na la yow defatoo dara ba liñ jàppoon ci la ngay defee delloo nañ la ko léegi nag injustice boobu ci fu la munta muñ tekki tamit da di taalibeeb Serigne Touba te lépp lu am tamit Serigne Touba ndax boo ñëwee këram gii boo xoolee ni mel foto yi Serigne nga fi fekk kërug Serigne Touba la ajjuma ji bu fi masaan a fekk day fees del jàngkati xasida yi dañ fi nekk ay àllkan moo ngi ni toog fii lañ daa toog di ko jàngal xasida lim am akus néew mu koy bokk ak ñoom kon kooku taalibeeb Serigne Touba kooku taalibeeb Serigne Touba la doomam ji njëkk am Serigne siidi Maxtaar la ko tuddee moom la Baye Diop tuddee Sidi Maxtaar Ndiaye ki ci toppaat mu tuddee ko Soxna May Soxna May mooy taawub Serigne Sidi Maxtaar kii ci toppaat ci kaso bi la ko fekk moom la tuddee yaayu Serigne Sidi Maxtaar kon kooku taalibeeb Serigne Touba ci engagement yi boppam nag moo jël boppam ne moom moom suñu baara moo wax ci laa meññoo ma dégg mu ne ci boppam mu daane ma fii lenn moo mën a am geref bi kenn mënut a tax ma bàyyi lenn rek mooy mën a am màggal Tuubaa moom du ma ko defee fii. ñaan nañ ko nag mu ne mu ne du ko fa jot mu ne day continuer grève bi faatu màggal ga ñu yóbbu ko suur ko Touba mu bokk ak néew màggale ko foofu wa ilaa ñu bàyyi ko mu faju même buy faju sax day dem ba Touba toog fa màggal ko waaye màggal Touba bi bi juddoo ba léegi nii musu ko kon du injustice bi ñu ko teg moo tax muy rate màggal Touba loolu nag diñuy firndeel ne ak gëmam suñ Touba ak bëggam suñ Touba moo ko jaral lool ndax li waxoon fii waxoon ko nu mu tuddati waa ji nekk 2STV yi ngol-ngol fii la toogoon bi nga xamee ne attaqué na sëriñ Touba mu ne ko man duma xaju ko xaju sëriñ Touba la mu ne ko Serigne Touba moom képp moom moo jaral dee kon loolu nag firnde la fii mu toll nii situation fi mu toll nii loolu day firnde la la nekk na ndax fi ne ne màggal Touba moom jaral na ko moom màggale ko ci bàmmeel yi waaye du ko màggale ci kaso bi moo taxoon faj mi ñu ko doon faj mu bëggoon ko arrêté ñun nag ñoo jël suñu engagement bopp wax médecin bi na ko nag na ko continuer faj bi ndax lu mu mën di doon tamit dañ koy waxtaanee lii may wax nii rek état am fii ma toog nii bu ma woo ne ma sëñ Baara faatu na dama koy gëm ndax gis naa ko te xam naa fi état am ndax tiim naa ko man lu ci bëree bëri dama ko yor ci moom mais wallaahi naa si bi may wax ak moom xameewu baat bi wax doo ko mën a dégg ndax da ngay sëgg ci moom ba pare doo xam li muy wax ndax ku toog 15 jours yoo xam ne lekkoo naanoo foofu la a toll kenn ku nekk da koy natt ci sa bopp kon fi mu toll critique na critique boo xam ne nii kenn mënu ko wax nit barke Serigne tubaa mi ma yaakaar musuma wax ci télé mais su ma toogoon fii ñu ne ma sëñ Bara faatu na dama koy gëm du ndax man gis naa ko kon li ñuy ñaan di ko delloo ñaan ndax ñaan képp lañ am ñaan képp ginnaaw defut te ñoom firndeel na ñu defut dañ leen ñaan ngir jëmme Serigne Touba mi nga xam ne amuñ ko moom di ko tàmbalee nag ci xalifa général des Mourides ndax démb man damaa tiit ba mujj gi démb fii laa taalee sama dem ba foofu gis gis naa ko bool na maa kenn wax naa moom la ma koy wax Serigne Mahi Niass am na ñu fa dem di fa dem ndax xam nañ ne état am fi mu toll fii ne nii buñ taxoon ne ñu faatu na duñ ko duñ ko wedd léegi nag kenn rek lañ mën a ñaan muy Serigne Mountakha mi nga xam ne moom lañ yaakaar moo wax ak son excellence ñu bàyyi mu dellu soit ci ay mbokkam ñu faj ko di ñaan tamit président de la république bu fekkee ne yëgoo xamal ne Serigne Bara moo ngi ci diggante dund ak dee ci la nekk te loolay dëgg Serigne Bara moo ngi ci diggante dund ak dee ci la ci loolu la nekk kon ñoo ngi koy ñaanat moom président de la république mi nga xam ne moo jiite réew mi sëñ Bara citoyen sénégalais xalaatam képp la doon wax ndax tout le temps la doon wax ne man sàccuma fenuma jaayu ma yàmbaal leen sama xalaat dong laay wax ginnaaw waxee xalaatam moo dem bañ tuubaal ko tegal ko lii lépp comme niñ ko waxee ab otom fii lañ ko taal wallahi alhasim bi ma njëkkee bi ma njëkkee ñëw oto bi moom ngi koy jënd plus de 40 millions man oto bi man maa ko fay biñ ko taalee fii biñ njëkkee lu ma njëkk wax dara yow ñàkk nga oto oto ba man la ma ci yéeg moom ci mu ma ñàkk oto moom betlu ko mëna ma noonoo lii dafa gën ndax la neen mën na moo cee fekk daane ma oto bi moom maa koy jënd waaye mënumaa jënd daane ma ki ma ko jox mën na maa joxaat lu ko gën nga xam ne kooku ku gëm yàlla la ko doylu la teewul loolu insistus boobu ñu ko teg ak yeneen ak yeneen yoo xam moom waxaloon na ko boppam loolu lépp koo def ngir lan ak bëggum réewam da ngay gis nit sax léeg-léeg moom daanaka day transfert waaye lépp lu ma mën moom ci njub la nekk comme ni mu koy wax àndut ak Sonko la àndal jub dafa gis ne Ousmane Sonko dafa jub mu ànd ak moom Macky Sall mi bu juboon ni muy défendre Sonko noonu la koy défendre xalaatam rek lay wax kon ñoo ngi ñaan lillahi wa rasuli Macky Sall ñun famille Sëñ Bara tiit nañ ci moom lool te mel yow képp lañ yaakaar ne fa mu nekk yàgg fu mën a génn ndax xam naa ne kat boo ko ci génn wut dana faatu man moom lool leer na ma naañ mel moom képp moo ko fa mën a génn fi mu toog nii kon Macky Sall ñun ñun njaboot gi bu aajee toog ci ñëpp dañuy toog ñu ñaan la li lillahi wa rasulihi nga bàyyi siñ baara ndax soxla nañ ko soxla nañ ko famille bi soxla nañ ko ndax fi ne nii de cent personnes yoo xam ne nii ci moom la ñuy liggéeyee fi ne nii lépp taxaw lépp lépp yàllaa koy sutural rek waaye lépp taxaw ndax ñëpp xamoon nañ kër siñ baara aju bu fa masaan ñoo ni mel ñëpp xamoon nañ ko tey xool kër gi daanaka ma nañu wax ne ci gent la gën a jëm kon mag ki nga téye ab sénégalais la ki nga téye tamit ku la jàppale ci réew mi ci lan mooy am na ñu muy employé yoo xam ne ni plus de cent personnes yoo xam ne daana leen xëy di fay dépense am daanaka daana mat ay million chaque mois kon kooku fi ne nii tey jii téye nga ko te boo ko téyee bu dee fee tamit mën nañoo wax ne fi ne nii chômeur lañ jëmaat rek kon ñoo ngi lay ñaan lillahi wa rasulihi président Macky Sall nga bàyyi Sëñ Bara yàlla tax ñun loolu rek lañ lay ñaan deseluñ dara mooy nga bàyyi ko te yàlla tax ndax ku doon wax ay xalaatam la moo ko fekk ci lii te it bëgg réewam tamit jaral na ko faatu wax na ma ko ne moo man su may dee naa dee sama bëgg rek waaye lii ma nekk dama ci génn kon ñoo ngi ñaan président bàyyi yàlla tax ñun loolu dong lañ la ñaan ñaanuñ la leneen loolu képp lañ soxla ñu mën koo jël man koo faj balaa leneen di ci xew ndax fii ma toog nii bu ñëwee ne ma faatu na dama koy gëm du ma du ma ci insiste sax ndax man gis naa ko kon président ñoo ngi lay ñaanal lillahi wa rasulihi ko na bàyyi jàmbur bi te yàlla tax xam naa ñoo ngi jégglu ba baax baax man mënewu ma wax waaye tamit dafa fekk ne tamit il faut duñ di ñàkk ñuy leeral fi situation yi tool moo tax ma génn waaye daanaka musuma génn sax di wax mais damaa xam ne fi fi affaire bi tool moo laaj moo war a génn wax moo laaj ñun ñi ñu war a génn wax di leen soññi tamit suba sitting bi nga xam ne ñoo ngi koy def Walfadjri waaw Walfadjri ñoo koy defal Serigne Bara Ndiaye ñoo ngi leen ñaan nag képp ku fa mën a toog suba teew suba nga ñëw fa jàppale ñu ñu ñaan ñaan rek même fii ci ñaan lañ tool ñaan képp xeexuñu xulóowuñu defuñ dara ñaan képp lañ toll ñaan lillahi wa rasuli mu bàyyi ko mu delluwaat ci njabootam ndax soxla nañ ko ndax patriote la ku bëggum réewam la lépp lu am réew moo ko may wasalaamaaleykum wa rahmatullah na kon xam naa ñu tii rek